mbokk yi du ñu seetaan euh, ci euh, Rewmi TV ak di ñu déglu ci réew mi FM 97.5 amati lu ñu mbégte ñëwati tey di waxtaan ak yéen ci l'actualité politique ak suñu invité tey nag euh, invité bu ñu am comme tous les dimanches mooy ña nga xam ki nga xam ni effectivement il fait partie comme ni ko tàmm di waxee des identités remarquables du pays yi nga xam ne am nu ñu jaar-jaar bu am solo ci réew mi ba pare am jàngat bu am solo ba nga xam ne chaque fois duñ koy def ci situation dëkk bi. suñu invité boobu nag tey mooy le docteur Lamine Ba docteur Lamine Ba nag euh, xamee nañ ko ci Abdoulaye Wade en tant que euh, homme politique en tant que ministre de la République euh, en tant que aussi consultant parce que en fait c'est un docteur en en politique politiques loolu itam xam naa daañu ci xuus bu bare laaj ko gis-gis gam si effectivement situation réew mi le docteur Lamine Ba aussi ci jaar-jaaram. Euh, nekk na fii ak le président Idrissa Seck en tant que secrétaire général de sa de sa de sa parti euh, pendant quelque temps après mu jóge fa dañuy également daañu waxtaan ak moom ci euh, jaar-jaaram boobu au niveau du parti Rewmi bu bu Séné bu Sénégal docteur Lamine Ba également nekkata ka nga xam ni c'est un consultant day liggéey ak ay ONG yu bare notamment le la fondation Frédéric Neumann nga xam ni dans le cadre Euh, des actions des partis libéraux du monde euh, dañ ciy def ay ay ay jàngat yu am solo d'autant plus que moom sax nekkoon na président bu euh, des libéraux d'Afrique loolu itam ci jaar-jaaram donc day bu ñu leen di wax ni rek effectivement ku ñu am tey nit ku am solo la te yaakaar naa ne également waxtaan bi ñu am ak moom dañ nekk waxtaan bu am njëriñ bu am solo ci ci ci doxalin réew mi ak ci gis-gisam ci ci Sénégal waaye balaa ñuy door suñu waxtaan du ñuy jox kàddu gi la docteur Lamine Ba. mu waxtaan ak ñun euh, nuyoog sénégal yi waaye nag aussi dafa am la nga xam ne lu am solo la nga xam ne fàtte naa ko c'est le président du PLC du parti euh, pour la liberté et la citoyenneté muy parti politique bi nga xam ne mu ngi koy diriger ci loolu également daañu ci waxtaan ak moom docteur Lamine Ba vous avez la parole. waaw jërëjëf euh, Moustapha Serigne Moustapha maa ngi lay gërëm ci invitation bi di am mbégte jàkkaarloog yow jàkkaarloo aussi ak sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi seetaan. maanaam seen téléspectateurs yi ak seen auditeurs yi nekk ci déglu réew mi FM di am mbégte lool ñëw waxtaan ak yow ci tolluwaayu réew mi eh, yaakaar ne am yaakaar ne xañ na bu ñu paree ci waxtaan bi liñ ñu génne dina amal njariñ nit ñi ndax léeg-léeg dañuy woo di ñu laaj ñu foog na xañ na eh, war ñoo war a wax waaye nag wax bala moo am njariñ mu jariñ waa réew mi teyit it liñ fiy wax it du xam-xam boo xamante ne ñun danga ko yor ay kilifa ci réew mi ëpp ñu xam-xam fopp ëpp ñu taxawaay mhm. xaj na loolooy tax bu ñu ñëwee ci plateau dañuy xaw a dal tey mhm. tey sàkku yàlla defal ñu xéwal ba nga xamante ne suñu waxtaan dina am njariñ ci réew mi te du yàq dara. jërëjëf euh, docteur Lamine Ba du ma dama naan soit j'ai des sax soit damay wax docteur Lamine Ba wala le président Mamadou Lamine Ba <laughs> ban ban moo ci ban ban ban ban moo ciy gën a jaar yoon. def naa ne ñaar yëpp ñaar ñaar yëpp a xaw a yem. ndax mhm. docteur daf maa dab. ndax njàng mi moo tax ñu ma koy woowee. président aussi euh, parti politique la bu ñu ma dénk. Mhm. loolu daf ma dab. Mhm. waaye Lamine daal moom moom moom gën a neex ci lépp moom. d' accord donc euh, du ñuy tàmbalee ci waxtaan wi ci benn question nga xam ne bu am importance la. Euh, gis nañu ni effectivement ak sa jaar-jaar nekkoon nga ak le président Idrissa Seck au niveau de conseil économique et social nekkoon également un membre de son de son cabinet en tant que ba pare bokk ci ñu dugal la ci parti réew mi mais dafa mel ni ni. Euh, sa dugg ci parti dafa am particularité <laughs> nan la particularité bi demee ak lan moo indi sa rupture ak Idrissa Seck. waaw laaj boobu moom dina ma neex lool ma ma tontu ci ndax xam naa ne ñu bari am na ci lu leen ump ci sama diggante ak euh, président sa Seck maa ngi xamante ne moom ci keppaaru Abdoulaye Wade ñu am jaar-jaar bu yàgg bu bari nag loolu xajul ci émission. Mm-hmm. nekk ay ndaw nekk ci wetam di liggéey di xeex di jàpp ci wàllu politique ba président Wade mi ñu jaboote woon dem ba nekk président de la république ñu falu mu falu ci suñuy pexe man ma génne Sciences Po Allemagne moom mu génne Sciences Po Paris ñu dajee donc xeex liggéey ba teg président Wade ci bopp réew mi pour mu xettali Sénégalais yi ci régime socialiste bi fi nekkoon te yàggoon fi lool te it yàgg fi yàgg ni woo xamante ne pexeem bariwutoon bañ fa jógee nag ñu nekk ci biir euh, kër président Ablaye Wade li ñuy wax wujj doomu bàyyi xaw ñu jàpp. Mm-hmm. ba diggante bi taxul woon neex noonu parce que waxtaan moom booy wax te nit ñi di la xool waxal rek lii dëgg taxu ko woon a neex noonu waaye nag bañ nee ba ci biir ñu xam ne ñun ñooy ndaw yi war a yore avenir réew mi ñu boolewaat suñuy jaaj boolewaat suñuy xol fexe ba wuyoo li ñuy woowee maanaam liggéeyal réew mi. Mm-hmm. mais pas di xiiroo ak a ŋaayoo. Mm-hmm. en tout cas man sama wàllu bopp noonu laa ko jàppee. ba tax na bi ñu ba président Wade nekk en war a def troisième mandat ñu la ko loolu baaxut mu bañ ñu dégg ah man ma dem bokk ak ñu ne woon président Wade warul def troisième mandat donc ma fekk foofu Idrissa Seck fekk moom sax génn na bu yàgg parce que jóge woon na primature ba dem créer parti boppam ci noonu laa leen fekkee ci opposition bi pas pour xeex président Ablaye Wade xalaatuma ko te li may dund waaye pour attirer attention rek ci l'histoire l'histoire du troisième mandat dafay yàq lu bari te ku ñu dem ba naw la naw def la président des libéraux du monde entier tubaab yi ñëpp di la déglu waroo yàq sa pàllax waroo yàq sa way waaye bañ demee ba ca biir président bi déggul lañ ko waxoon mhm. ah ñu yàlla def li mu dogal Idriss Seck woo ma ne ma damaa bëgg wax dëgg yàlla nga jàppale ma pour man ci wàllu présidentiel 2012 comme yow xam naa sa sa xam-xam ci wàllu science politique ñu boole suñu xalaat waaye campagne boobu doxutoon deful melul ni mu war a mel bañ ca jugee mu am résultat bi mu am mu ne mun day dem jàppale ji président Macky Sall deuxième tour. justement ma ne ko ah man nag président Macky Sall moom. Euh, aw bu ci moom confiance. noonu laa ko waxee woon. Mm-hmm. mat na fukki at ak nangam. mais ni ma koy waxee woon noonu laa koy waxaate mm-hmm. parce que du ma wax di ci dellu. Mm-hmm. dellu sax ci Ablaye Wade moom ma gënal di jàppale kii ndax xam naa ne kii ma gis. dañ ko am réew musiba ni laa ko wax woon ci plateau yi. bu leen neexee ngeen génne bande yi delloo ma ci ginnaaw ci benn yoon. ba tey fi ñuy waxee gis naa ne xañ na am na lu mu fi jot a def waaye nag yàqu-yàqu yi bari na bari goo xamante ne waa réew mi jaaxle nañu ñu si bari. rëcc daañu ñëw ci yàqu-yàqu yi daañu ñëw ci si si domaine boobu ñu jox ko mu doxal ak moom man ma toog jàpp sama njàmbur jiital sama parti jiite sama parti bu ñuy wax PLC ma nekk fa président ay xale ay avocat ay euh, ay cadres yu mag. créer parti politique ma daal yaa ñu jiite. muy PLC parti pour la liberté la citoyenneté. ma nekk seen président. ñu dem ba deux mille. Euh, yokk ngeen ci la sax def defar jikko yi. PLC parti pour la liberté et la citoyenneté defar jikko yi. ñu dem ba li ay di njàmbat maanaam léegi koo wax mu ne defar jikko yi. Mhm. dañ koy wax booba yàgg na. Mhm. mat na fukki at. Mhm. waaye bu ñuy wax souvent yooyu boo koy wax nañu duñ la déglu duñu xam fi ngay waxee dañu lay jàppee rek ñu dem ba deux mille dix huit jub. deux mille dix neuf mhm. élection yi. justement président euh, Idrissa Seck daal may invité fële ca Lamantin Beach ngeen baal ma ci publicité bi. Mhm. ni daal damaa xool xool xam ne daal bu ñu boolee mhm. suñu doole ànd. mooy gën am naa ci yow yaakaar te fu ma duggit nee nañ ma naa fexe ba tafoo ak yow. ndax sa xam-xam euh, ak sa loyauté. pour ñu jéem a dimbali réew mi xettali réew mi ci Macky Sall mii tey noonu la demee. ay seede nga fa woon ba ñu toogee waxtaan ma ne ko ah mais man na damaa yor parti li man def daal mooy fexe ba def boole ñaari parti def fusion mm-hmm. waaye nekk nekk allié yooyu xam ne day compliqué mu ne waaw dañuy def fusion bu ñu defee fusion ma nekk président wu réew mi nga nekk secretaire général réew mi ñu dem wuti lu ñu am ñu seddoo ñu boole suñuy doole pour defaraat defar réew mi ma ko d'accord ma dem Allemagne dama voyage comme d'habitude comme waxee léegi damay def ay consultance ànd ak fondation Naumann dem Allemagne toog ba ci yàgg rek xool euh, réseaux sociaux yi gis ne nommé nañ ma président wu réew mi euh, vice président euh, secrétaire général parti réew mi mu jaaxal ma lool ndax. en fait bu mu la koy nommé yow yëgu fekk yëgoo ko waaye ma ne booba bu ma ko weddee ne demewul noonu mhm. du baax ci moom parce que secrétaire général dañu war def congrès boole ñaari parti yi ba ñu jaxasoo ba pare ñu ne ñaari parti jaxasoo nañu kon kii mooy président moom kii mooy secrétaire général comme ça congrès moo koy validé mais munoo wax ak nit rek euh, mu jël avion dem nga daal di def li nga bëgg daal di ne nommé naa général de mon parti ma xam ne su ma ko weddee ca taxawaay bi ci tàng-tàng bi ñu ngi mal si prés élection présidentielle euh, te man ma candidat mais moom mooy nekk candidat xam ne la mu koy yàqal ci crédibilité am dina bari ma kooku naa ko wanaasu rek mu bàyyi mu jàll ma bàyyi noonu mu sedd balaa may ñibbi si Sénégal l'histoire de ak Makka juddu mu nekk ci ak jaaxle ko rëy rëy rëy ma ne daal nit boo ànd ak moom ba ci diggu yoon daal doo ko fa bàyyi moom rek ma ne dinaa ko ci jàppale ci loolu ba ñu génn ci turbilance boobu ñu xeex wax ci média yi lijjanti expliqué ba Sénégalais yi jéggal ko loolu ñu dem élection deux mille dix neuf ma ne ba tey naa bàyyi noonu ñu may wooyee secrétaire général ma ne bon par conformisme jarte weddi ndax fu nekk nii boo ko weddi itam li muy yàq mooy ëpp li muy defar. est-ce que yaakaar naa instant bu erreur nga def ba nga ba accepter sa conformisme. non du erreur parce que booba li ñu dëgmal moo ëpp solo sama jëmm ji. Mhm. ak gis-gis bi nit ñi di am ci man. ñu ngi dëgmal élection présidentielle bëgg nañ fi jëlee président Macky Sall parce que boobu réew mi lott nañu te xam naa ne xaar ba 2024 dina metti waaye nag yàlla dogal nañu xaar nañ ba 2024. j'espère que fi lay yem. Mhm. <laughs> alors ma ne nañu muñ rek ma bàyyi noonu ñu doxal ñu may woowee secrétaire général toog di déglu parce que mënoo nekk président parti ba pare nekk secrétaire général mënoo nekk vice président international libéral ba pare nekk secretaire général wu beneen parti. Mhm. mënoo nekk vice euh, président wu réseau libéral africain ba pare nekk. secrétaire général beneen parti c'est impossible. non même man j'ai général et puis entre temps y a eu d'autres changements. lu mu waa ay ba mu neex ko daal di daal ne Ba mooy sama sixième vice président. Mm, mm, mm. sixième sixième vice vous vous imaginez. président d'un parti tu passes sixième vice président mais yooyu yëpp. léeg-léeg dañu ne olof nee na waxee des na ko tontu déwén te tontu du forox. ma ne kii daal su ma ko toppee nii dañuy yàq lu bari te xaj na amal na njariñ réew mi ndax gis naa ne am na xarañte. te xaj na bu ñu ko dénkee réew mi xaj na dina am lu mu andi de plus kon jarul ma ko yàqal dara li yàqu ci moom du jóge ci man ma toog di ko muñ rek mu xëy ñu dem élection ma construire ko coalition bu mag def ci lu rëy a rëy maa ngi toog ci télévision ñu ngi may dégg ancien PDS yu mag yëpp ma seeti leen kilifa yëpp Awa Diop mu nga ca nga jël yàlla ma seeti ko seeti jigéenu PDS seeti ndaw ñi ne leen comme suñu frère Karim xañ na du mën a ñëw nekk candidat te ñun ñëpp ay libéraux lañ nañ boole lañ am yëpp jox ko seeti suma mag aji bu Soumaré. Hmm. maa ngi koy gërëm au passage di ko di ko nuyu. seeti suma mag Pape Diop ñu daje New York ñoom ñëpp ma seeti leen parce que xam ne yàlla def na sutura ba seq naa moom di diggante yu rafet ñu jox ma seen kàddu seeti Abdoul mbay dem fekk ko ba këram parce que ñoo bokkoon nekk lycée Vanvo. Hmm. amicale des anciens du lycée Vanvo maanaam lu ma xam rek fu ma xam rek ma dugg fa. ci sutura nag. bañ ko def waxuma ci njëkk comme ni waa ji wax. Eh. ci sutura mm. <laughs> euh, ndax xam naa ne euh, bu ñu boolee yooyu yëpp rek dina am njëriñ ba ñu naan la coalition du siècle. Mm-hmm. ñu am une grande coalition ñuy xeex ci suuf liggéey ci suuf dem Europe seeti libéraux yi waxtaan ak ambassadeurs yi def yaakaar ci ñoom ba ñoom ñu am yaakaar ci moom. Mm. ma def loolu lépp ci sutura ba tey parce que soxla wu fëgg dënd ne maa def lii. ak ñeneen aussi ku nekk def nga ci la nga mm. laa indi comme contribution ma def ko ba yàlla def. ñu dem élection yi ñu am lu ëpp vingt deux vingt trois vingt quatre pour cent. am na ñu ne sax am na lu ko ëpp dafa am nu mu demee rek. Mhm. ah ay ay ay ñi bokkoon ci coalition bi doon ko jàppale ñu ci bari ba ci ñoom Barthélemy Diaz ñi xale yi socialiste ñëpp a jaxasoo woon ànd ak moom. Mhm. boobu ñëpp ànd ak moom ah, PDS. effectivement tout waa waa taxawu Dakar taxawu Sénégal taxawu Sénégal ñëpp ànd ak moom. Mm. ba ñu demee ba proclamer résultat yi keroog ci guddi xale yi fekk ñu fii ci VDN bi. Mhm. permanence su Pape Diop ne ko da ngay génn jubal ci palais bi ko déet loolu du am man du ma ànd ak kuy taal réew mi mu ne ma non du ko def donc loolu jaar ay jaar-jaar la. Mhm. ay intime la yoo xam ne nit ñi duñ ko fekkee. Mhm. mais jar naa expliquer pour nit ñi xam. bokkoon naa ci ñi ko ñi téye loolu pour deux mille dix neuf. résultat yi génnee. Mhm. kenn demul ci mbedd mi pour taal parce que taal amul njariñ réew mi ñoo ko moom. buñ ko taalee suñu doom lañ ko yàqal. loolu moo noonu la demee ba mbir yi jàll ñu toog ba ci yàgg ma dégg ne mu ngi négocier yëgu ma ki dara nag ba benn bis mu ne ma ah. ma ma wax ko ne ko dama dégg ne da ngay négocier loolu noonu la demee mu sox ma expliqué ci lii ak lii ak lii rek lii ak lii ak lii moo ko waral nii ak nii laa koy defee ma ne ko baax na xayrun mu ne man nag su ma sañoon nga nekk sama conseil sans wet ma ne ko waaw donc yooyu bu muy négocier am yow vous faisiez partie yi nga xam de privilégiés nga xam ne yëgu nga ko avant muy non non non non bi muy négocier moo négocier yu mbiri boppam man yëgu ma ko parce ko yëgoon moom mënu ma imaginer nga dem élection nga am près de vingt cinq pour cent mhm. nekk numéro deux après les élections ba pare dem di négocier dugg ci gouvernement ak ñaari portefeuille duggu ci gouvernement ak euh, sans am ay porte poste d' ambassadeur parce que booy négocier da nga war am vingt cinq pour cent peut être même hmm. des structures des des institutions mën nga am benn institution am peut être cinq six sept huit ministères Allemagne dañ koy defee xam ne dafa am lu ñuy wax euh, des coalitions hmm. Euh, gouvernemental mais li ci Allemagne du li ci Sénégal d' accord je suis <laughs> mais quand même les mm. pourcentages sont sont sont là pour sont mm. parlants. munoo mm. am vingt cinq pour cent ñu jox la un ministère. je sais pas de l' élevage et un ministère je ne sais plus quoi encore. Euh, c' des bons ministères. mais du ministère yoo xam te ne xale ni sénégalais yi teg nañ ko bët te mën nga lañ ci indi lu lu lu gaaw lu lu luy koom bu gaaw a gaaw gaaw peut-être débat boobu du ma ci dugg. parce que c'est un peu plus compliqué. en fait est-ce que mu ngi ñëw si si moom dem nekk président du conseil économique social et mm. ma toog ci wetam comme conseiller effectivement du ma ko renier hein. mais ma gis ne liggéey bu war a tax ñu toog foofu gisuma ko fa. Mm. yàlla rek a tax may wax. gisuma ko man daf ma ne woon maay conseil bi yore affaire coopération ak euh, je crois diaspora et et Euh, gisuma fa partenariat gisuma fa coopération li euh, ma fa proposé pour ñu dex ci loolu euh, fulaalu ko. Mm. mais comme dugg nañ ci ba pare man danaa toog rek xaar xañ ne bis dina ñëw li yëpp dina jeex. ma mm. toog di ko déglu gisuma fa daal liggéey bu waroon tax ma ma am motivation pour continuer ci loolu. ba benn bis mu xëy ne aussi dafay génn bokk naa nag ci ñi ko ko génnal ci lii ndax lii amul njariñ mais dina ma dégg bokk naa ci lépp bind naa ko mu ngi ma bind téye génnal ci lii ndax lii amul njariñ bind naa ko ba tey. Euh, yàlla dogal nag bi mu génnee ma xam ne léegi amatul benn enjeu euh, dootum ko yàqal dara parce que génn na foofu bëgg na nekk candidat a la présidentielle mais waxagul nan la koy doxale ma ne nag mayit wax dëgg yàlla war naa am bëgg-bëgg ak yéene bu weesu rek topp ci nit rek mel ne benn wagon <laughs> bu ñuy xëcc rek à gauche à droite ndax nag la comme li alof yi wax li mbëtt bëgg la bar bëgg <laughs> mu ne damaa laaj bi yàgg ndax am naa jaar-jaar def naa fukki at ak ñaar kenn mosuma fay dégg ci lenn lu ñaaw ñu may mën a waxal réew mi nekk nag Ablaye Wade pendant presque trente ans nekk xale ndaw jaar naa fi ma war a jaar lépp ci wàllu njàng ci wàllu lépp nag ci biir réew mi ma ne xañ na ren dinaa xool daal nu may doxe ba ñu am koo xamante ne bu ma mënta nekk candidat it xañ na peut-être <laughs> sama doole bariwul peut-être ma ci question justement euh, ma seet daal nan laay mën a taxawee daal ci li ñu jëm muy 2024 mm-hmm. loolu nag ci laa jëlee décision woo suma waa parti ñi nga xam dañ ma déggal lool mm-hmm. à travers le secrétaire général Alassane Ndaw le responsable des jeunes Aline Diouf ma woo xale yëpp woo responsable yi consulté ñëpp ñu ne ma ñoom daal lépp mën naa nekk ba mu des continuer ci alliance bi ak Idrissa Seck parce que nekkuloo fa responsable lu dara secrétaire général bi nekkuloo ko parce que tu es président de notre parti ba ñu waxtaanee ñu jël une résolution daal di génn ci alliance boobu yàqul dara nag sama diggante ak moom du ma toog mukk ci plateau di wax ci moom lu ñaaw ndax ànd ak nit wax ci moom lu baax mu neex nga xëy ne kii du nit baax man dama ko jombale sama bopp. donc yow en fait si mais bàyyante nañ daal ku ne def na les exigences politiques léeg-léeg politique day toll foo xam ne. Mm-hmm. dafay am lu bëri da nga koy muñ. Mm-hmm. da ngay wanaasu c'est comme nga nekk ci biir gouvernement rek doo fa am lu la neex mais nga wax ne xam ne boo ko boo ko waxee mu indi yàqu-yàqu. Mm-hmm. nga muñ ko ma nekk naa ci gouvernement par exemple am fa lu ma naqari lool ci doxalin. ma xëy na damay bëgg a démissionner publiquement mm-hmm. ndem si yàlla si biir yàlla na ko yàlla yërëm moo ma woo dama loolu kenn du ko def mm-hmm. ndax kii la fi teg sa sa baay la mm-hmm. kilifa la lu mu metti metti muñ ko donc da ngay lu bari quelque fois alors donc ndegam nag loolu ngay ngay muñ ci wàllu gouvernement muy metti lool ah euh, moo rawatina nag ay ay ay ay alliance politique boo xamante ne ki nga ko seqal daanaka du ngeen sax wax nekk nañ conseil économique social pendant deux ans ma nekk conseiller mais ñaari ñaari yoon laa laa gisante ak moom kooku lan laa koy conseiller est-ce que bu ngeen bu ngeen bu ngeen séparé wu ba léegi am jot jot ngeen. ah non non non man j'ai pris ma responsabilité. xañ na yëgalu ko yaram waaye man tamit eh, yëgata yëgatu ko sama yaram. d'accord euh, euh, loolu c'était juste pour euh, léegi dama bëgg ñu ñëw ci ci sa parti le PLC. waaw war ngeen dem normalement un parti son role c'est de briguer le suffrage des Sénégalais. Mm. en tant que président du PLC dégg ko ma boo dégg naa y a au moins une foultitude de candidatures. pour la candidature à la à la candidature est-ce que vous au niveau de du PLC yéen da ngeen décider effectivement da ngeen di dem pour briguer le suffrage des Sénégalais si oui nan ngeen koy defee et également euh, la question que c'est c'est pas trop tard parce qu'on est à six mois de la présidentielle est-ce que yéexul. bon <laughs> je crois que non seulement <laughs> yéex na pour ñun ñi gën a euh, ñàkk siiw ci yëngu-yëngu yi. Mhm. mais yéex na sax ñu nekk ci nguur gi ndax amaguñu candidat. waaw eh, eh. ah, non waaw kooku moom loolu moom. c'est notre c'est notre débat loolu moom. <laughs> yéex na pour nga xamante ne. bëgg démb la justice gis ne war mën a bokk. Eh. yéex na pour ñu nekk ne ay candidat lañu ba pare te yoon ba teggeegul loxo ci seen kaw. yeex na pour ñëpp en réalité. d'ailleurs moo tax léeg-léeg bu nit ñi naan élection est-ce que dina am sax. c'est une question toute légitime. parce que dafa mel ne kenn parewul. Mm-hmm. pour pour élection yi. Euh, donc yeex na pour ñun. Mm. te it euh, euh, am naa kersa lool bi ma déggee candidature ni mu bare. Mm. ma di ci yokk sama tur. parce que dafa am ñoo xamante ne dafa mel ne li wax candidature de complaisance. Mm. maanaam wax ci kaw rek ñu dégg la nga feeñ ci télévision yi nga pare demaat toog sa kër. loolu moom du ma ko def bu dee loolu moo tax mooy tax nekk candidat. Mm. xalaatu ko parce que weesu na weesal naa sama bopp foofu. ensuite euh, Sénégal du foowukaay boo xamante ne. ku jug rek ne dama koy diriger jiite du du du lu yomb. Ah, nekkul loo xamante ne euh, da ngay yeewu rek daal di toog benn grand place ñu tàgg tàgg la dem nga ñaari ngénte dem nga ñaari dëj. Mm-hmm. dégg nga organiser nga ñaari gàmmu taxaw fa sol sa grand boobu bu bëree rek. ñu mm-hmm. daal ne kii kat kilifa la mën na yorum réew. réew di loolu réew c'est plus compliqué. Mm-hmm. ku day ne Senghor bu yoree am réew dem ba réew mi jaaxal ko. ku day ab Abdou Diouf yorum réew dem ba réew mi jaaxal ko. ku day ab Abdoulaye wàdd ak ni mu xarañee yorum réew bu dem ba réew jaaxal ko. ku day ne ki fi nekk tey yor mu réew mu tële ko lool mu nekk ci bët bëti boobu ba léegi fukki at ak nangam hmm. mu metti lool ci moom kon wax ku bëgg a laajum réew war nga xool sa jaar-jaar hmm. te war ngaa am reen yu xóot ci réew mi hmm. nga xam réew mi mooy lan parce que réew mi yemul rek ci ndakaaru réew mi kajoor la njàmbur bawol siin saalum casamance boo demee ci ci euh, Sédhiou dem ci ci région sud bi loolu yëpp dafa am ay ay ay ay mbir ay reen ay racines yoo xamante ne da nga ci war a da nga ci war nàmm nàmpatal ba nga ba nga ba nga ba ci nga soog mën taxaw laaj réew bi mhm. rek ci voilà mm. lu ñu ne comme toile mm. da ngay bëgg nekk président de la République da a lor waa réew leen waaye doo dem ñoom fenn kon nag war nañu ko xool bu baax mm. parewuñu parce aussi Sénégal àgg na foo xam te ci wàllu euh, politique boo bëggee laaj réew mi il faut nga am koom-koom bu bari. Mm. te nit ñi du laaj nag foo jëlee koom-koom bi. élection présidentielle du affaire wu deux cent millions cent millions cent une affaire de milliards déjà ku nekk candidat booy nekk war nga wax fooy jëlee milliards yi ngay utiliser. Mm. parce que boo jógee fii ak sa ñetti oto di wër réew mi foo àgg finalement dañ lay retaan parce que tàmmal nañ nit ñi def convoi wu trente quatre cars yoo xamante ne quarante bu ci nekk mi ngi boo ko xolee muy convoi wu deux milliards di hmm. daw ci kaw tali bi te nit ñi duñu la laaj yow lii ngay dawal nii foo ko jëlee mais loolu moo fi yàggam waaw moo fi loolu dafa war a dañ hmm. dafa war a dañ hmm. dafa war a am ay débat ñu teg candidat yi nga toog wax ñu xool la ci biir biiri bët xam yow mii sa bët yi nga derrière le regard fa ne nga wax say kaddu ñu xam sa kàddu yi lan la und umb ñu xool sa jaar-jaar ba nga juddoo fii ci réew mi ba ba ni nga toll nii lan nga fi def loo fiy dundee ak lan nga fi am ba yan jikko nga fi am yooyu dañ ko war a seet mais du ñu seet rek benn waay jóge fële dem gis ay bailleurs ñu jox la 2 3 milliards nga ñëw yu wut say 4 4 nekk ci dëkk bi di wër di bàkku ñu jox la réew mi lii lay mujjee comme li fi fu nekk nii. nit jël seen maire parce que nit ñi dañuy mere président ba folli ko. mais du ñu xam ku ñuy fal. ëpp doole rek ñëw ak xaalisam ñëw mais pas ëpp ay idées ëpp xalaat yu rafet ëpp yéene bu ci réew mi kooku duñ ko xool loolu moo tax nag man ma jàpp ne lépp ngi fi am naa yéene bu rëy ci réew mi parce que fii laa juddoo Ndakaaru gi. lii mm. euh, camp camp Dial Hmm. ak Lat Dior màggee hmm. fi jànge lycée Vanvo lycée Vanvo ñaari président Sénégal foofu la ñu génne fa laa jàngee hmm. dem jàngi université Allemagne ak université Dakar ba jot un doctorat comme tu le donc bu dee loolu aw ci xel ñaar def naa douze ans de gouvernement tiim naa lu nekk olof nee na ku war ñee leneen loo yëg mu tuuti ci yow tiim naa lu nekk te taxul ma euh, dindi sama ngor lu nekk nag taxul ma def loo xamante ne tey jii du ma toogee ci ab néeg dinaa rus Sénégalais yi yëg ko wala dinaa rus man sama bopp ma taxawee ci kanamu bi wante loolu dafa doyut la ca des mooy koom-koom boobu. Mm. la koy maye laa nangu lu woon a def may nekk ci gouvernement bi. moo tax fi nekk ni parewu ma pour am koom-koomu nekk président de la république. parce que loolu lañ soxla. justement léegi en fait euh, toujours sur la présidentielle gis nañu ni effectivement wax nga wax ba bu bu nit mën a comprendre nit mën a mën a mën a dégg euh, nekkoo candidat. Euh, Idrissa Seck. attention waxaguma nekkuma candidat. Euh, dama ne pareeguma. pareeguloo waaw pareegul waaw justement justement la précision. pareeguma amaguma lu ma nekk candidat ah, mais bu ma ko amee suba ma nekk candidat yi aucun problème. gis nañu ni effectivement am na ñi xam ne ñoom nee na ñoom ay candidat nañu pare nañu pour nekk candidat war pour yow en tant que président d'un parti politique soo demee ba nga xam ne gis nga condition yi nga xam ne yu war a mën a tax nga mën nekk candidat nekkoo ko hmm. est-ce que pare nga. malgré la la rupture bi nga am ak Idriss Seck moom ki dit qu'il est candidat qu'il est pare nga pour ànd ak moom wala pour ànd ak beneen candidat euh, au euh, à la à la présidentielle et puis dans ces si si candidats yooyu est-ce que yow tu préfères les candidats d'obédience libérale. ça c'est c'est une constante chez moi. Uh-huh. su ma sañoon. Uh-huh. ci politique sa. Uh-huh. Euh, te taarix ba bokk. muy libéralisme. ku ku ku ci mbubboo ku koy wuyoo. kooku laay àndal parce que loolu laa gëm ne moo mën a suqali réew. parce que mi ngi fondé wu ci liberté moom sa bopp li kii di wax euh, benn benn politicien gëm sa bopp xam sa bopp bëgg sa réew gëm sa réew di dox ci xam-xam libéralisme mooy loolu di dox ci koom-koom boo xamante ne dañ koy redistribuer pour ñëpp mën a jariñu am yërmande loolu yëpp moom mooy libéralisme su ma gisee koo xamante ne ku dul man ku ma ëpp moyen pour def ko te ma wóolu ko ndax nag li ñu wax nag jëmbat fi nga wóolu te booy dem ba xamatoo fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon comme man sama diggante ak kii nga tudd léegi muy Idrissa dem naa ba xool ba xamatuma lu may nuru duma ci wax lu ñaaw du ko ci def waaye nag dakkal naa ko dakkal naa ko bu wér waaw dakkal naa ko bu wér a wér a wér boo xam ne def naa du ma ci delloot ginnaaw mhm. waaw donc su ma mënee dem nag mhm. dinaa jéem waaye su ma mënul it dinaa xool ku mën a dem ma boole samay dém ak samay Dakar. Mhm. ànd ak moom ñu dem. yan mhm. relation am avec les autres partis libéraux de ce pays parce que bari nañu fi waa PDS nga fii waa APR nga fii euh, waa réew mi ngi fii ñoom ñëpp en fait c' est des gens yi nga xam ne jot nga cheminer ak ñoom sur le plan politique yàgg na est ce que avec ton ton sa parti jot nga am jot am ay ay liens ak ñoom jot nga link ak ñoom jot nga waxtaan ak ñoom sur euh, le fonctionnement du pays ak yan nan nuñ ko mën a mën a gérer comme échange am entre partis politiques. libéraux xam nga. Euh, waxuma la sax sama parti euh, le PLC mais xam na su ma jëmm ju ñàkk solo ji rek. Mm-hmm. ak jaar-jaar yi tax na ñuy def politique waxuma sax ñu nekk ay libéraux kese mais même yeneen yeneen nit ay socialistes ay euh, parce que au-delà de ça aussi bu Sénégal taxawee dañuy daal di teg fële idéologie yi aussi. Mm-hmm. parce que socialisme euh, conservatisme libéralisme day fekk ñu am jàmm mais bu réew mi nekkee diggante comme ni mu tolloo diggante nii dégg nga ak problème justice yi fi am problème violence fi am. ak menaces yi nekk autour euh, ci autour du pays dootoo xool nag idéologie lu bari donc sama jëmm ji rek xaj na am nañu yaakaar ne am naa ci ay xalaat ñu ngi may woo di waxtaan a ak man am na sax ñu ma seet si ak ñu bëgg a dajeek man pour ñu waxtaan ci nu ñuy génnee réew mi ci xat-xat bu métti bi parce que ay la yoon ak lu mu métti métti quand même pour def douze ans ci gouvernement def trente ans euh, ci ëpp ci parti politique yi Euh, ku bëgg a xalaat ci lu jëmale réew bi kanam mën na am mu am xalaat ne war nga ci mën a indi sa sa sa grain de sel nga ci am tuuti gis-gis donc ci cadre boobu ñu bare may euh, contacter di waxtaan ak man euh, di wax di ma laaj sax pourquoi yow bëgg loo nekk candidat d'ailleurs mm-hmm. am na ci ay kilifa yu mag ak sax ay ay ñu fi toogal ay yeneen réew yu yu yu yu ma contacter ne ma yow. Euh, pourquoi bëggoo ne candidat ak loo xalaat kan moo war a nekk le meilleur candidat parce que loolu mooy suma métier aussi. Mm-hmm. je suis un internationaliste relation internationale laa jàng. ba mm-hmm. pare nekkoon ministre de la coopération. Mm-hmm. donc ni ma koy laaj. ma ci nag benn décision bu claire waaye. dafa am parti boo xamante ne man fa laa jógee. muy muy muy muy PDS. Euh, waa PDS effectivement ñi jël nañu ak contact ak man pour di waxtaan ak man d'ailleurs sax mosuñu perdre contact parce que ñu ngi waxtaan tout le temps. en mm. ah, ku mel ne Tafsir Thioye nekk un grand cadre du parti démocratique sénégalais nekk suma rakk suma xarit euh, ku mel ne euh, Doudou Wade nekk suñu mag ak ku mel ne Karim Wade aussi ñu ngi waxtaan ah. Karim Wade woon na la. ah bien sûr oui oui mi ngi waxtaan ak man. woote waxtaan grand frère. yàgg na wala récemment. non non yàgg yàgg na yàggul bon yooyu détails yooyu dafay compliqué pour wax ko <laughs> daal. donc en fait il euh, dafa bëgg soutien par rapport à ak yow. Ah, wala ak wala wala ay conseils wala ay conseils la soxla. en tout cas xam nañ ah. daal doomu baayam la ah. ndax saa su ma woowee sax li may njëkk laaj ana suma papa mooy Ablaye Wade bi ma tuddee baayam la may njëkk a laaj kon xam na ne kooku yàlla boole nañu. au-delà de la politique. donc ñu ngi waxtaan di diisoo euh, ay waa PDS yi ñoom Alioune Diop ay Aïdara Sylla ñoom ñëpp ñu ngi waxtaan. noonu laa koy defee aussi ak ku mel ne Cheikh Bamba Dièye sama rakk sama xarit la. lu ko jaaxal mu woo mu ne ah, mais grand frère loo xalaat ci te moom socialiste la pourtant donc ñi bëgg réew mi ñëpp fi nekk nii te seen bopp rek taxu leen jug ñu ngi jéem a diisoo di waxtaan pour seet yoon parce que réew mi dafa tàggatee mais quand même il faut le dire. justement man dama bëggoon ñëw mu toll. Euh, nekkoon nañu si benn situation xam le contexte comme on le dit c'est un mm. ñoo ngi arti nit ñi ñoo ngi bundaxatal ñenn ñi ñoo ngi tëj ñenn ñi dem nañu sax affaire bu extraordinaire bu seet nga xam ne gëj nañu ko wu. yow en fait euh, je ne dirais pas sa avis euh, politique la laaj mais sa avis en tant que politologue nan ban ban jàngat nga am ci situation bi Sénégal toll actuellement lan lan la lu ko lu ko lu ko indi ak fan la ñu war a mën a jëmee suñu on fait suñu suñu suñu suñu deful nànk. Euh, moi je crois que à un moment donné on a le sentiment que euh, maa ngi làkk tubaab sax mm-hmm. émission bi en wolof la mm-hmm. l' <laughs> état c' est un peu affaissé mm-hmm. état bi moo dem ba. ba ba homme politique yi politiciens yi yenn ñi dañu dem ba xeeb état bi te état du du ay caaxaan du ay caaxaan parce que bu ñu demee ba attaquer les structures les forces de l'ordre forces de l'ordre ils maintiennent l'ordre loolu seen role la ñu dem ba xale yi am fitu jàkkaarloo ak ñoom jàmmaarloo ak ñoom di xeex ak ñoom y a quelque chose qui quelque part parce daan nañ grève daan nañ xeex mais ñu jël ay mool di ko dóor ay kaw ay alkaati waaw ah, ñu ko def dem di taal université bi dem di taal commissariat di taal ay kër jàmbur yoo xam te taal ay oto jàmbur yu def loolu dafa lu ko waral est-ce que maa ngi ñëw maa ngi ñëw waaw ma tax ma ne l'état s'est affaissé à un parce que nañu waroon taxawee taxawewuñ ñi parce que bu njëkk boo gisee ministre da nga koy jox cër da nga koy respecté waaye man fi mu nekk nii ku ma ne monsieur ministre damay xaw parce que tellement surtout dafa xawee ko ba bu njëkk dañ daan dañ daan tànn kan mooy nekk ministre. Mhm. xool ko ci lu bare bare bare bari boo toogee ñu ràññee boo doxee ñu ràññee la booy wax dëgg ngay wax ci yoon ngay wax waaye boo nekkee ministre tey nga wax la ëllëg nga wax leneen dégg nga nekk ñu dénk la lu mel ne yoon par exemple nga dem bay wax contraire li nga daan jàngal say say say say étudiant yooyu yëpp ay ay comportement la yoo xamante ne du comportement bu état bu responsable donc y a une sorte d'irresponsabilité dans beaucoup de déclarations de part et d'autre de part finalement il a manqué des hommes d'État pendant ces quelques dernières années là sorte que population bi dem nañ ba xàmme xa xàmmetuñu kenn ministre député du jàpp député ak des sortes de drogue jàpp député ak des des des des des hmm. ñu dem ba man man de damaa rus nekk bu ñu nee monsieur le ministre damay tiit parce que sag bi moo xam moo moo moo moo moo sàggeeku léegi nag bu demee ba demee ba demee noonu ndaw yi dañuy daal di yëpp état bi xam nga xeeb état bi xeep président de la république bi ñëpp. dañ leen xeet c'est ça la vérité koo ci wax di tudd tudd ministre wala président ñu wax ci mu teg ci moom loo xam ne kenn mënu ko nettali ci télévision loolu benn la mais aussi état bi xeeb ñu bëri xeeb nañ ko ci loolu mais xale yi bëri xeet nañ ko aussi ci ñàkk indi perspective pour ndaw ji amul benn perspective boo rombee ci mbedd yi buntu kër boo romb fukki nit fukki xale yu góor vingt ñu ngi toog di waxtaan lu ñuy wax Barça dugg na fii Real génn na fële Sadio Mané et cetera loolu du loolu du réew réew mi dafa dem ba xale yi amatuñ benn perspective parce que bu ñu nee ba ñu naan dugg ci géej gi dee wala jaar ci désert bi dee foofu moo leen gënal toog Sénégal di xaru comme ça nga xam ne amatuñu proposé wuñ leen benn perspective ñu dégg nag à côté des milliards ah, des députés qui perçoivent je pas deux deux millions trois millions. Mm. des ministres qui ont cinq millions je mm. ndaw ñi am liggéey sax mënuñu am deux cent mille ñuy dundee infirmiers yi war a faj seen salaire matul sax deux cent mille yu ñu mën a faj faja seen soxla ndaw ñi euh, nekk ci buntu kër yi amuñu liggéey bu ñu def mm. mais un état comme ça est un état injuste il beaucoup d'injustice waxuma sax injustice au plan politique un homme politique qui fait des choses ñu arrêté ko mm. mais injustice sociale da ngay toog gis benn nit boo xamante ne doo nekk ci bopp koñ bi xëy nekk député yor 4 4 50 60 millions te amul sax certificat boo demee hôpital infirmier yi am passe bu ñu demee principal loolu Dantec duñ ko am te war a faj nit ñi donc c'est yaay beaucoup d'injustice bu bu kenn corrigé wul bi Wade ñëwee ne dafa bëgg a jël injustice boobu dafa yàgg dafa yàgg mais bi président Wade ñëwee ne dafa bëgg a jël 40 pour cent du budget mm. dugal ko ci éducation nationale yokk salaire enseignants yi multiplier tous les salaires double tout mm. yokk salaire infirmier yi 40 euh, pour cent ci ci éducation nationale au niveau de la santé c' ça les grandes politiques macroéconomiques yi nga juste euh, redistribution des produits de la croissance. des fruits de la croissance loolu la libéralisme di wax mais defuñu ko defuñu ko dañu bàyyi di gën pauvre la pauvreté a gagné du terrain et il a des projets de prestige c' vrai c' bon d' un terre il a peut-être 100 000 quelques passagers que. est-ce est-ce que c'est c'est prioritaire par rapport aux Sénégalais que tu vois dans la rue qui n'ont pas à manger mmh. c'est pas prioritaire c'est c'est un bon projet je ne dis pas non le BRT qui est là <laughs> BRT euh. bi fi nekk nii mm. projet bu baax la mais yooyu c'est c'est mettre la charrue avant les ba manaam da ngay jiital nu ñu koy teg dina xaw a jafe ci man dañ mm. ko ajoor laa nag waaye mm. xam man daal la ñu war a def daal lay farata ak fulla jiital ko moo gënoon def yenn yi il faut que ñu jox nit ñi ay perspectives pauvreté bi metti na jigéen ñi sonn nañu ndaw ñi sonn nañu loolu nag cocktail la boo xamante ne étincelle bu ndaw rek lu tuuti rek da koy indi da koy exploser mm-hmm. loolu moo fi xew fan yi passé mm-hmm. mais loolu justifié wul ñu bëgg a dëbb dëkk bi ba mu mokk loolu jaru ko ndax la ngay jàmbat bu metti la ba tax nga koy def la ngay yàq day day yokk joote ñu mm-hmm. wax yokk joote ci wolof day yokk joote day tax mu gën a metti encore day tax ki fii ñëw euh, liggéey bi gën a metti encore non wax nga fait actuellement du ñu on manque d'homme d'État euh, li ko waral mooy Afrique li xew la nga xam ni si yow pour yow fekkoon amoon nañu des hommes d'État li fi am du fi am. Mhm. Euh, mais gis nañu aussi de l'autre côté euh, surtout au niveau de l'opposition dite radicale ñoom may ñu lenn lenn lenn nos noo nos lu ñu def ñu xarab ko euh, wax leen wax wax wax wax ju ñagas. waaw à ce niveau là foofu. est ce que yaakaar ni également comme ni nga waxee part responsabilité partagée yooyu euh, c' est parce que li nga wax léegi le le déficit d' homme d' état moo indi lii lépp. waaw foofu aussi euh, xam nga parti bu xëyee rek juddu rek. Mm. ñu ne parti sàngam juddu na daal di am doole bari ay militants bari ñu gëm leader parti bi te jaaruñu ci formation jàngaluñu leen. Mm. parti boobu dafay dafay dangereux parce que ñu koy gëm. nit ki la ñuy gëm mais gëmuñu jaar-jaar bi maanaam yoon bi ñu war a jaar pour àgg ci projet bi ñu bëgg a teg ñun dañu nekkoon ay élèves di def ay grève ci lycée yi ndànk-ndànk bokk ci parti dem université di def ay grève ndànk-ndànk boole ko njàng mi te lu tax ñu yàq lu bari parce que amuñ xalaatuñ ko sax di dem réunion di nekk ci quartier yi nekk ci ay section ay secteur boo dee xool PDS dafa amoon ay secteur ci quartier yi section ci ngay jaar man secteur Guédiawaye daaw de béy laa duggee PDS en 1976 boobu xale bu tuuti laa leen bindal ay PV de réunion ak Guédiawaye en 74 donc di nga xam ne politique du jaay doole du teg xeer du jël jaas yi du taal mais politique jaar-jaar la dox ndànk ba comprendre sa ennemi ki ngay xeexal lan la def lu baaxut ak noo ko fi jëlee boo ko fi jëlee loo fi teg loolu nag moo amul ci ci partie opposition yu bees yi d'ailleurs la preuve ku jóg créer parti la preuve il y a trois cent et ñetti xarit ñu ne la defal nañ la parti bu nga xëy taxaw ci télé bi wax lu la neex nit ñi topp la ñu seen xol tàng parce que ñi doon yàq ñu ci bari du ne sax dañoo bokk ci ay militants benn parti ay sénégalais yu seen xol jeex président bu taxaw ne du def troisième mandat damay wàññi sax mandat bi ma joxoon toog ba ci biir naan bu ma neexee ma def ko mujj mu naan nii oui nii xam nga jeexi jaaxe yooyu moo warul ci am réew booy dox dangay ngay doon nit tànk dañ koy dañ koy tàllal mbaa ñu bank ko mais mënoo toog di def ciix jaax ba pare bëgg nit ñi toppale ci loolu loolu moo indi yu bari donc irresponsabilité bi moom hmm. euh, dafa dafa law ci ci wàll yëpp mais ñi jar a gërëm nag dans tout ça et vraiment je le dis solennellement et sincèrement mooy l'état du Sénégal les forces de sécurité y a pas des hommes politiques hommes d'état hmm. mais y a des hommes d'état ñi téye réew mi ba réew mi rëppeeluwul muy les forces de défense et de sécurité xam ne li ma nekk doomu soldat moo tax ñooñu ñu jara gërëm la ñu ñu jara ñu jara ñu jara félicité la ñu boo jonte ñoom kon làmbaay ñaaw heureusement que taxaw nañ seen taxawaay bu mat sëkk ba réew mi taxaw fi ba tey ñooñu jar nañoo sant waaw en fait dama am na beneen mbir aussi bu xew parce que wax nga léegi effectivement euh, que de l'autre côté amul répondant bu war a tax ñu yenn yi mën a am mais est-ce que c'est pas également li ñuy wax les les sociologues ñu jàng société bi ni muy évoluer parce que en fait le Sénégal de 1960 c'est pas le Sénégal d'aujourd'hui pour preuve li mu koy li mu li mu li mu li mu li mooy gis nañu ne effectivement des hommes politiques je je je prends par exemple l'exemple de quelqu'un euh, le leader de PASTEF ñu arrêté ko euh, mu nekk dans une situation compliquée sur le plan sanitaire tu vois de l'autre côté nit ñi di ci yenn ñi di ci bég de responsables yi di ci di ci di ci wane seen mbégte naan effectivement maanaam comme ni ñu wax ñaw baax na ci baax baax na ci moom Euh, loolu nekk na la nga xam ni mosuñu ko xam et gis nañu aussi sur le plan de généralement il y a pas cette capacité d'indignation de cette situation la est-ce que loolu nekkul aussi li war a mën a tax ñu mën a xoolaat suñu bopp xam ne effectivement fi ñu jëm baaxul. Euh, bëgguma nekk ci plateau di tudd turu nit. non man dama jël exemple boobu rek quoi. jël jël di personnaliser euh, le débat. Euh, d' abord bokk ma ci ñuy wax ñaw ñuy bëgg ci li hmm. dal. Euh, non en fait li mu koy wax. parce que non c'est par rapport à la à notre manque de capacité d'indignation c' est un exemple bi euh, ma au contraire au hmm. contraire dama ko yërëm lool ndax li ma ko yërëmee mooy. Hmm. bu amoon encadrement politique bi war ci moom. bu ko amoon xañ na jaar du du si fii mu egsi te du tere dina dox doxu politique waaye boo amul conseillers yi di war ci yow ay hommes d' homme d'état du rek ku ma sa nekk ministre nag mooy ñu xam état dëgg encadré la teg la ci yoon ba loo war a def ñu ñu ñu ñu ñu seggal la ko ba mu baax soog la bàyyi nga koy def kon xaj na lu bari du ko dal mm-hmm. parce que boo nekkee un opposant dafa am lu bari looy da ngay war dañ la war a ñàkk dañ mm-hmm. dañ la war a aar gis nga <laughs> Moustapha su ma demee bi ma nekkee gouvernement su ma demee ci benn réewu jàmbur dem hôtel dem hôtel laa wax sama mission hôtel ngay dëkk. pour def sa mission. pour ma sumee ko dafay ramu neen sama néeg ma nekk sax. Mm. dinaa xool ba xam amul ay caméra foofu mu déet ndax dama ne homme d'état laa réew bi est-ce que ma nekk. est que xaritu Sénégal lañu. est-ce que du ma fi yor comportement boo xamante ne dinañ ko reprocher Sénégal ëllëg. Mm. Mm. li may doxe li may waxe bu ma toogee à di lekk sax ci sama biir nawle damay bàyyi xel loolu loolu mooy encadrement bi encadrement bi dafa ak formation bi dafa war. ba tax na Ousmane. mi nga wax ni. man dama ko yërëm euh, yàlla na ko yàlla génn ci situation bi mu nekk nii bien que faruma nag ñu ànd ak moom ni ñu koy doxale faruma lañ ci loolu taal am réew moom faruma ci kenn. waaye ndaw la wane na ak bëgg-bëggam ci réew mi. boo xam te ne je crois kenn nattable ko te it buñ ko encadré woon xañ na yàlla mën na def mu xaar ba bisam jot parce que ku nekk sa bis mën na ñëw. mu jot li mu war a jot waaye dafa mel ni daal dimbalewuñ ko ñi ànd ñenn ñi ànd ak mu waxuma ñëpp. mais dimbalewuñ ko pour encadrer ko pour teg ko ci yoon Ablaye Wade li muy nekk nekk mag mag ñu. dañ ko am benn jamono ñu bëgg a def nangam. nangam ku mel ne man xale ndaw boo xam ne magee na ma 40 ans ñu ne ko lii de mënta nekk te bu ñu ngi ci opposition. mu ah lii nekk lii moom lii ak lii ak lii. exemple bi ma leen jël rek mooy benn toog nañ fii ci réew mi président Alassane Ouattara ñëw fii nekk opposant ñu invité ko fii def ko vice président international libéral jàppale ko taxawu ko. mu bëgg a def conférence de presse fii au Méridien je crois boobu yow ti naan fekk na la fa hmm. fii au Méridien ne def conférence de presse pour wax ma la ma ma ma ne ko doo ko doo mu mais ça pas non pourquoi ngay tere Ouattara ma ne ko non il a au moins un million de Sénégalais en Côte d'Ivoire il est opposé à Gbagbo su taxawee fii def wax lu mu war wax Gbagbo Sénégalais yi bu génnee foofu ñu di rey comme ay weñ loolu ce serait irresponsable ci ko woy na ko bu ko bu ko def donc Priyanka Wade kilifa gu mag la ëpp ñu xam-xam ñun ñëpp xañ na mais dafay am loo xam ne da soxla ay conseils parce que situation bi ñuy vivre yow doo gis lépp donc Ousmane xañ na loolu je crois que daal na ko moo tax jar naa yërëm léegi nag liy jar ñaan mooy yàlla na ko yàlla wéral te it su ma ko woon conseillé xañ na man tuuti naa ci conseillé ko mooy na dund lekk naan te waajal boppam bu dul bii di beneen ndax yàlla ñëpp la fi nekkal en fait non en fait li ma li ma bëggoon mooy qu'on qu'on revienne sur la capacité de cette ce déficit de capacité de déficit là loolu lan moo ko waral sociologiquement li tax lu am loolu loolu d'ailleurs rebondir relancer nga ma ci question boobu uh-huh. parce que yéen am ngeen ci rôle uh-huh. yéen ñu yore plateau yi uh-huh. man ban plateau nga ma gis ñu invité ma fa ma toog fa di wax comme ni nga def ni yeneen yu relo yu indi yu relo nit ñi lañ fay invité que man parce que man li may wax amul dem ba soppeeku ñi leen intéressé mooy ñi indi buzz. ñi tax nit ñi di ree. li ñuy wax la popularisation de la. voilà donc du ñu invité nit laaj ko ci xam-xam. Hmm, laaj ko ci mais ku ku yëreloo nit ñi d'ailleurs émission yi du ma tudd émission fi dégg yëpp yi ëpp fii euh, de euh, capa comment. Euh, audience audience plutôt. émission yooyu yëpp ay ay ay yu yëreloo nit ñi la ñuy indi ci ay nit ñu mel ne ay comédiens finalement même Kouthia amatul sax rôle bu mu joué fi mu nekk nii parce que am na yenn plateau yi boo ko xoolee rek xam ne Kouthia presque il a perdu son boulot. Mm. parce que <laughs> ni ñu fay invité daanaka ñoo bokk métier moom ñoom et ça c'est dommage ñu dem ba foyer politique bi te politique dañ koy jàng dans les universités ni médecin bi demee dem jàng def sept ans. man ku mel ne man mi ak ñi ma raw hmm. dañuy toog sept ans ci université di gëstu sociologie nu ñu war a téye réew mi nu ñu war a téye am réew mi quest qu'il faut pour nit ñi wér euh, les politiques de santé hmm. les politiques de d'éducation les politiques de communication pour réew mi nit ñi mën a jokk jokkaloo di dem ak ñëw hmm. pour comme ko mën a judd ci loolu dañ koy jàng mais ñu ñuy toj ci plateau yi fii waxuñu loolu waxuñu loolu leneen la ñuy wax nit ñu la une mu nekk buzz ñu daal koy def revue de dem ba mujj na ma yàlla baal dañu ñu dañ ñu dañ ñu dugal ci ak ak ñàkk ñàkk maanaam ñàkk ñàkk personnalité ñun bala ngaa kontaan rek déglu revue de presse man ak sama morom a ci ma hmm. boo ko dégloo pare nga ci dafa nga ne loolay dox ci réew mi te pourtant loolu doxul ci réew mi benn mooy wax fële benn mbir rek ay ñaaw ngay dégg suba ba ngoon jot loolu nit ñi di xaar de sorte que kon nit ñi dañ dem amatuñu capacité d'indignation loolu moo koy indi hmm. parce que la presse a un rôle d'éducateur la presse doit enseigner mais informer et éduquer mais presque jàngalatuñ kenn dara taxul toogal fi ñu wax waxu libéralisme ak ay affaire socialisme lu leen wutale mais dañ naan kii il nous emmerde daf ñu fatigueel ay waxu yi muy wax ni ay waxu intellectuel du dëgg kenn na wutul débat boobu te loolu dafa mënut a ñàkk ci am réew. waaw mais aussi il faut également nga nga nga dugal ci aussi le le rôle des réseaux sociaux lu ñu ñëw yàq bo bokk ci tax na aussi. réseaux sociaux yi du Sénégal rek la mhm. mais li xew Sénégal presque mhm. euh, mais. je veux pas donner de nom hein mais damay déglu léegi benn comédien diw savant je sais pas une femme là. Mm-hmm. mais man su soo woote woon tey jii ci benn place moom la ñuy wër man su ma woote ñu ne kii ku béykat <laughs> exemple laa jël rek. waaw le jeune euh. mais moom l'a dit d'ailleurs. day day boo ko defee Sénégal yi saaga nañ ñun ñëpp. ne ñun ñëpp ay dof la ñu kon moom il def yow dof pour mu mën a am dara ci réew mi. c'est très grave. Mm-hmm. te ñu ngi koy xool ni d'ailleurs loolu dafa war a am sax je crois boo xam ne day toppatoo xam nga gouvernance du rek xaalis bi fi la dugg fi la génn gouvernance aussi mooy nit ñi la ñuy xalaatee dafa am loo xam ne am na réew yoo xam ne kenn xel xalaatu ko fa man bu ma jógee fi dem yenn réew yi dugg Allemagne dans le doo gis mukk ay jeunes sëgg ci seen téléphone di di connecté comme ça ñu ngi ci leneen mais fii da ngay toog sa biir kër paa bi nekk fële ci ruqam ak téléphone am bi fële xale yi wax ak kenn yaa ngi wax ak ñeneen te lañ lay wax amu ci dara lu am njariñ TikTok n'importe quoi donc yooyu moo dem ba capacité d'indignation amatu fi kenn defu fi rôlam nag homme politique yi defuñu seen rôle presse bi joué wul sociologue yi ngay wax joué seen rôle kenn defu fi rôle nag fi mu nekk nii. réew moom léegi en fait on ñu dellu si redressement la laaj ñu dellu si politique bi avec euh, situation waxoon nañu ko sànq ci suñu njëlbeen waxtaan euh, avec euh, la présidentielle qui pointe à l'horizon bon c'est vrai que chef de parti mais aussi du ñu soxla sa xam-xam en tant que politologue gis nañu ni comme ni ñu ko waxee sànq à six mois de la présidentielle ba léegi xamuñu kii ba être candidat et qui ne va pas être candidat li ci gën a doy waar mooy la parti au pouvoir ba léegi a six mois xamuñu ba léegi kan mooy seen candidat le chef de l'État chef de sa du, du parti de la coalition moom nee na il va opérer un choix na naka nit ñi déglu dans ça au sein de sa coalition il y a yi nga xam ne ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi euh, formé wu yow en tant que politologue loolu nan la mën a nekkee dans un pays qui se dit démocratique et qui respecte les les règles de droit. je parle même pas d'un pays démocratique qui respecte les règles de droit dans un pays normal tout simplement. Mm, mm. le fait que le fait que kii jiite ñëpp toog ba mu neex ko dal ne bu ma sañee bu ma neexoon nekk candidat waaye bu ngeen bañ a ma nekk candidat nan ma koy ñaan nañ ci njëkk dinañ may ñaan ci njëkk pour bañ a nekk candidat. Mm. Wade moom da doon ñaan ci njëkk Wade moom moo doon ñaan mais ñun ñoo war a ñaan kii moom. Mm-hmm. boo fàttali ko président dama leen di ñaan ngeen may ma ma àggale li ma doon def. juróom benn weer wala at. moom da doon ñaan. parce que moom xam na état parce que mu am détail parce que respecté na Sénégalais yi xam na Sénégal. mais kii. daf leen naka Sénégalais yi. moom ñun ñoo ko war a ñaan. Mm-hmm. et puis en plus mu teg ci ci njëkk. <laughs> c'est vrai c'est vrai que on a on n'avait pas perçu ça ça. il faut il noonu nag man personnellement xam nga man sama wax. du ma ko lakk-lakk tey changé wul man la Lamine Ba ñàkk yaakaar ga ma amoon ci moom ba muy soog a toog fii ba ma wax ko ci ñëpp dégg ma bañ naan ma damaa dof ak wéru ma xaw ma fu ma jëm loolu dégg naa ko ñàkk yaakaar googu dara dindiwu ko ba tey xaw ma ku muy tànn mais du nekk ku muy tànn mooy nekk président du Sénégal du moom mooy tànn président du Sénégal candidat wu parti lay na ko moo xam ku muy tànn mais bu respecté partem de wax dëgg yàlla war naa mën a tànn partem bi candidat am yàgg na parce que ki ngay tànn pour mu nekk njiitu réew da nga koy waajal doo toog rek ci benn groupe nga ne bon finalement kii moo fi sës loolu mooy rey dëkku Afrique bari loolu mooy seen problème mhm. président de la République dañ koy waajal même boo nekkee opposé gi nga Ablaye Wade mi parce que Senghor daf ko waajal parce que xam ne ne laay jomboor am na xel nangam nangam mais daf ko waajal xor ñooñal ko bundu xatal ko tuuti bàyyiwaat Abdou Diouf ñëw mu teg ko xaw a gën a nooy mhm. <laughs> mu jëflante ak Abdou Diouf Abdou Diouf xam wa xam wàllam ci nag wi daal di yolomal daal di dem ndànk bàyyi ko mu toog loolu waajal lépp ci ay ci xeetu waajal la. Mhm. président Wade xañ na defoom def na defoo boobu moom it waajalul ki ko war na wutu xañ na nag dina waajal benn lu mu waajal mu tas yaakaaram tas ba tax na affaire bi bett ko. mais njiitu réew dañ koy waajal doo toog rek juróom-benn weer. est-ce que Wade n'est pas responsable de notre situation. ah oui sama ah papa ah, la si si suñu toppee sa logique. waaw waaw bien sûr. Hmm. suma papa la j'ai beaucoup de vénération pour lui du ma wax mukk lu ñaaw ci moom. Hmm. waaye xañ na mag dab na ko. mag dab na ko ba xañ na na mu waroon mbiri waroon tëddee wu ni loolu yëpp nag ci dañ koy def ci wàllu mag ndax mag moom ma ma mag dafa doy dafa doy fa metti mhm. comme ni wax ni ko benn philosophe di waxee la vieillesse est un naufrage mhm. xañ na dab na ko waaye yéen wees woon na foofu mhm. parce que consultation yi ñu bari consulté woon nañ leen du ma dem ci ay secret nag ñu bari consulté woon nañ leen pour waajal leen pour dugg primature waaj pour dem après man mii proposé nañ ma primature en 2004 mais booba mataguma pareeguma pour loolu. Mm-hmm. man maa ko décliner sama bopp. am na ñu koy wax mais man suma ko wax mais mun naa ko wax tey. Mm-hmm. effectivement loolu yëpp ci xeetu waajal ki lay ki lay wutu la. Mm-hmm. Euh, euh, waaye euh, kii moom toog ba mu des juróom-benn weer amagoo candidat nga bëgg a seet ki la neex xañ na waajal na ko ci xelam ak xolam te kenn xamu ko. waaye waaye waaye mbir am nañu ni effectivement moom waaju la ko woon parce que en fait daf ko bëggoon mais c'est moo tax mu décliné waaw mais moom pare parewul woon pour wut am na ñu koy wax ndax euh, xam nga xam nga nguur daal du mbiru ku nekk. Mhm. affaire nguur daal dafa am fu muy jógee pour dugg ci biir nit ki. Mhm. bu fa jógeewul nag buñ la ko yéene day xaw a dis ci yow mu mujj rek mooy ngay jaay jaay moom ba keroog ngay jaaxaan dama koy wax de manière globale. Mhm. waxu ko ci barba la wax nag xaw ma dëgg nga ma am déet. nguur daal du mbiru ku nekk. waaw nguur dafa dafa dafa am ñu ko yeeyoo ak ñu ko yeeyoowut oh, ku ko yeeyoowut bu ko bu ko ko yàlla yenee nattu lay doon ci moom presque. ay coono rek lay indi ay jafe-jafe rek dina neex nii nga nuru ku nekk ci jàmm. Mm-hmm. fekk na yaa ngi ci souffrance bu méttee métti. ba pare ce peuple di souffrir en même temps parce que sénégalais yi ñu ngi souffrir xamuñu ku leen di diriger dans cinq ans dans dans dans deux ans dans trois ans. Mm-hmm. homme d'affaires yi investisseurs yi d'ailleurs toog naa fan yi rek ak ay kilifa yoo xam ne dëkkuñu ci réew mi dañ fi toogal seen réew mais dañ ci amul jaaxle sax ñoom pour seeni projet dañ naan woy ñun suñu projet dañu xamuñu di ma laaj ndaam diw loo xalaat ci diw waa diw loo ci xalaat. loo ci xalaat man mii la ñuy laaj man mu nekkul sax ci nguur gi pour jaaxle kon moo leen ne kon jaaxle gi yemul rek ci sénégalais yi mais ñi bëgg Sénégal ñëpp jaaxle nañu te ñooñu wax dañoo bëgg Sénégal dañoo jaaxle ci Sénégal ndax dañoo bëgg Sénégal kon euh, mel na ne fi ñu jëm nii daal élection yi ñu jëm nii ah xam naa ne li ñu wax ne politique du du ëmb day xëy aussi day xëy daal di am gone dama koy bëgg a wodd pour <laughs> tegginal ko <laughs> du ëmb day xëy rek am gone mm-hmm. boo mutu loolu dinañu dal waaye yooyu nag doo xam ban façon gone ngay am parce que mhm. gone sax bu ko dee am dañoo war dem seeti visite médicale visite prénatale à un mois à deux mois à trois mois ba xam ba xam lan lay indi euh, euh, euh. waaye boo ko defut nag leneen loo am nag mm. ah yaa ko teg sa bopp voilà <laughs> jërëjëf en tout cas kontaan nañu kontaan nañu lool monsieur le président Lamine Ba wala docteur Lamine Ba doon la recevoir fii sur le temps qui nous était imparti jeex na euh, di la gërëm di la sant euh, vraiment am amoon nañu vraiment euh, kontaan bu mag déglu la effectivement et puis wax dëgg yàlla wax nga fi xam-xam te yaakaar naa ne effectivement Sénégal yi. ñoom aussi ñu doon seetaan ak li ñu déglu am na lu am nañu gindeeku ci ay question yu bare eh, loolu vraiment ñoo ngi la ki sant di la ci gërëm xanaa di la jox kàddu gi rek nga tàggoog sénégalais avant ñu leen di jox rendez-vous dimanche prochain. waaw maa ngi maa ngi maa ngi lay gërëm mayit di gërëm ñuy xool. di ñaan yàlla yàlla nañ jàppale ba dafa waxuñu fi luy lu ñu ñuy xeebe wala lu luy blessé kenn. lu fi génn loo xam te ne eh, yëngal na xolu kenn rek. Mm-hmm. ñu ngi ko koy jéggalu te xam ne suñu matadi la. waaye du woon suñu yéene jeexal ci ñaanal réew mi nawetu jàmm parce que ñu ngi ci nawet bi inondation yi bari na ndox mi nit ñi sonn nañu poto poto yeeg foo jaar ci dëkk bi mhm. di leen masawu coono yooyu yëpp ak feebar yi ñuy àndal parce que y aura des maladies taw bi taxu kaa barikat y aura des maladies pré-hivernales eh. sibiru baa ngi ci réew mi nit ñi mm. sonn nañu euh, maa ngi leen di ñaanal yàlla musal ñu ci lépp luy mbas ak mm. ndox te yàlla defal ñu ñu àgg ci élection yi ak jàmm am candidat bu baax elect euh, président bu baax ci jàmm. Hmm. bu nekkee man tamit ba tey dina baax waaw man daal ñaanal réew yëpp daal jërëjëf incha allah. Euh, ñu ngi lay gërëm di leen sant itam yi doon yéen doon seetaan di ñu déglu ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje incha allah dimanche prochain ci waxtu wi jërë ngeen jëf ba dimanche.